financement ay financement xale yu jigéen yeeg yooyu man maa ngi ci terrain bi dans ma commune je précise dans commune y a des gens yuy woo ay jigéen di leen ne dañuy leen ay financé di récupérer seen ay kii mais pour une histoire de parrainage dafay dem ba jigéen ñooñu nga xamante ni ñoom la ñuy jël seen ay affaire di leen naxeer kii ñoom ne wëlbati ku ñëw sew di la di la di la wax ak yow di la nettali loolu dafa am c'est une réalité mais nañ waxante dëgg rek bu ñu waxante dëgg te yàlla dama ne la su fekkee ni la coalition benn Bokk Yaakaar wala Amadou Ba dafa ni am nañ en l'occurrence soo lay bind ko trois millions et quelques ci ay parrainage mais est-ce que gis nañ fenn fu nga xamante ni waa APR wala la coalition benn Bokk Yaakaar si dëkk bi ñu ngi gis di pare ñu ngi parrainé man gisuma ko sincèrement parlant. waaw ah, ñu am nañ un appareil politique nag. seen seen parrain. waaw léegi day na yomb nag. non mais da mais parce que responsable bu nekk dañ lay jox euh, benn lot de parrainage mais bu ñu la joxee lot de parrainage waaw léegi ah. la joxee fiche de parrainage n'est-ce pas da ngay dem ci nit ñi. di dem ci nit ñi dugg ci biir dëkk bi. gis nañ nu ko gëm sa bopp defee gis naa nu ko Abdourahmane Diouf defee gis naa nu ko Pape Djibril Fall defee na benn jour maa ngi ñëw fii gis naa mu yor ab camion bu mag di wër si dëkk bi ñu ñu koy parrainel. yàgg gis naa gis naa nu nu ko ah. nu ko Pastef aussi defee sur le terrain. <laughs> ñooñu gis naa ñu ko defee sur le terrain. <laughs> mais mais dama ni man. man laa la wax man gisuma benn leaderu APR wala coalition benn Bokk Yaakaar ñu nekk sur le terrain di demande des parrains loolu man maa ne gisuma ko en toute sincérité. mais bu dee ci côté Pastef wala ci côté Bougane Gueye Dany wala ci côté Pape Djibril Fall ñooñu mën nañ am njortu rafet. parce que au moins gis nañ leen sur le terrain ay nit. ba démb démb maa ngis gis gëm sa bopp ay nit yu yor ay bool dugg si biir dëkk bi pour ñu parrainer Bougane mais loolu man gisuma ko ci camp présidentiel bi loolu c'est une réalité ta li ma la wax léegi ku ko weddi dama nga vérifier ko au niveau des des collectivités territoriales da koy gis y a des gens qui exploitent les données personnelles des gens pour di parrainer te li gën a grave dans tout ça mooy nga sàcc parrain euh, signature u jàmbur c'est dangereux bu président Macky Sall di traité les cadres Casamance di leen traité escroc en réalité lii mooy escroc wax ngeen ko léegi nee ngeen ni am na ñoo xamante ni dugal nañ leen ci ay fiches de parrainage te boobul batiku woon dem seen kër laaj leen ndax dangaa parrainel diw ñun la déet yéguñu ko mooy rejoindre li ma wax léegi nii c'est ça la réalité des choses dem gis naa la femme de kii de de Amadou Ba ñaata parrain la déposé trois cent soixante quinze mille et quelques parrain la déposé pour Amadou Ba. Ah. mais l'activité d'abord. première dame. waaw première dame. activité bi. Farba Ngom une des premières dames Farba Ngom man bi ma gisee nest pas mu borom valise yi. Euh. bi ma ko gisee ak valise yi man pour man day tukki en réalité. mais ndekete ay fiches de parrainage. ñoo si nekk mais Farba dafa rek. xam nga contrairement ak li mooy li Ndeye Fatou wax léegi la mu joxe ak la nekk ca localité ba diamétral paradoxe total. <laughs> xam nga yooyu aussi tamit ça suscite véritablement des interrogations yu ñu war a waxtaanee en tout cas daal ñu ngi si. contexte bu nga xamante ni. comme qui donne des parrainages supérieurs. waaw à sa population. <laughs> mais loolu mais mais lapsus day am. du lapsus day du lapsus day xam nga il faut que nag euh, fi mu toll nii Mouhamed. opposition bi il faut que ñu ñu xoolaat seen taxawaay aussi. opposition bi gën a dëgër gën a ah, taxaw. opposition baa parce que gis nga obstacle bi ñuy wax. mais mais ma jox la benn secret. opposition bii tant que. weesuñu ba du ñëpp ñenn ñi bokk tant que weesuñu état bu parrainage doo leen dégg doo leen seen yoon nekkul ci dara. man maa la wax loolu du ñëpp nag certain. waa léegi tant que tant que jàlluñu état bu parrainage moom. bul xaar ci ñoom ay ay. Ah, taxawaay lan moo ko waral mais loolu danger la si ñoom lan ah tax ñuy def loolu. Ah, mais mais mais mais Mohamed. waaw léegi léegi léegi mais danger bi foofu danger bi foofu lay gën a grave. Ah. parce que ñu ñoom fa la ñu nar a xaar. foofu la danger bi nekkee parce que bu ñu demee logiciel bi la ñuy amal problème. léegi nag balaa ñuy yegg foofu ñoom duñ jéem a xool lan na nekk ci logiciel bii xanaa dégluwoo leen ju gay l'original logiciel bii nga xam nar naa baare candidature yu baree bare bare bare loolu nag ñoom dañoo war a taxaw fi mu toll nii jéem a lijjanti lan moo ne ci logiciel bi. d'accord ba ñuy bloqué ay ay ay ay parrainage yoo xamante ni. liñ leen bloqué ak lay lay nekk ci kii bi. c'est ça dara dafay day wute. Euh, bamb waaw mais ñu ñëw ci mais mais mais. 3 millions 700 waaw Mohamed. bon pour le cas aussi euh, de ces chiffres là c'est un peu complexe aussi il faut aussi même si euh, man j'ai du mal à croire à bu ñu defee une analyse un peu approfondie aussi euh, bu ñu fàtte ne aussi c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar qui est au pouvoir euh, aussi diggante li fi dañuy élection coalition voilà c' est une coalition aussi des partis et des mouvements c' est une coalition aussi te diggante bi ñu. mais lan la ñu amoon. waaw fa laay jëm fa laay jëm fa laay jëm nii fa laay jëm nii fa laay jëm nii. fa laay doon jëm nii fa laay jëm nii fa laa nekk nii doon jëm nii. fa laa nekk nii doon jëm nii mais législative yeeg yii nii mais am na temps bu jàll mais fa laa doon jëm nii sax fa laa nekk nii di dem gis nga ni ma commencé nii. ba ñu am chiffre bu ñu amul ci législative ah waaw mais kon liggéey nañ ci démantèlement bi am la du du du du biir day wasin day xëy rek daal day wasin waaw day xëy dama ne bu defee une lecture politique approfondie. Mm-hmm. bu ñu fàttali aussi la coalition Benno moo nekk au pouvoir. ma ne boo jëlee dernière élection yi ñu en ak léegi aussi nombre de d' inscrits dafa yokkuwaat. Mm-hmm. non mooy des ki dafa yokkuwaat. Mm-hmm. parce que en 2019 ñu ngi woon si à peu près li nga xamante ne mooy si euh, inscrit pour votant yi 4 millions euh, à peu près mais léegi fu ñu ngi wax waxi 6 millions à peu près kon diggante bi yokkuwaat na fii parce que boo xoolee même en 2019 boo xoolee Macky Sall si nombre de parrainage moom ay 2 millions la andi woon ah, en 2019. 2 millions ah, millions. waaw en 2019 côté yooyu 2 na ko ba am. amoon na ko moom na ko. boo ko gis boo xoolee. Ah. mais na 2 millions parrainage donc je parle de parrainage. la andi woon. Mhm. mais bu fàttali ne Amadou Ba bu andee 3 millions. day mel ne kon boo koy dégg day mel ne kon Amadou Ba moo gën a populaire Macky Sall mais bokkul circonstance yi bokkul diggante 2019 ak ren mooy 2023 nombre d'inscrits dañoo yokkuwaat. donc loolu d'accord nag loolu d'accord en tout cas bu dee dernier dernière révision bi c'est lu ñu wax trois cent mille xaw quatre cent même pas cinq cent pas cinq cent mille quatre cent et quelques personnes nouveau inscrits waaw mais dama ne boo xoolee peut-être que loolu noonu dama la bëggoon ne augmentation du chiffre beeg de votants yi mën na jouer si li nga xam mooy chiffres yi malgré que j'ai du mal à croire mais je suis de vous dire que diggante ak 2023 bëri li nga xamante ne changement yi dafay am mais Bamba il te faut une analyse quand même beaucoup plus pointue. allez-y je suis soit da ngay wax euh, soit da ngay wax. chiffres yi. Mm. na ko nangu. parce qu'il faut être clair avec na koo nangu. parce que parce que parce que teg ay hypothèse comme ni nga ko waxee. non je wax ne chiffres yi. lii ak lii ak lii lii. mun tax mu yokk ba pare nga naan même si. j'ai du mal à croire ces chiffres. léegi pour maintenant quel pas quel pas me suivre. ci gën a. xam nga tamit yi fii bu ñuy wax fii dañuy gaaw bi posté ba du la déglu. dama ne. Hmm. augmentation bi mën nañ koo comprendre si li nga xamante mooy diggante deux ak 2023 dafa amal li nga mooy yokkute si wàllum li nga xamante ne mooy nombre d'inscrits. mais yokkute bi yokkute dépassé na 1 million est-ce ko. d'accord loolu laa la wax sànq. ma ne chiffre bi la soo lay joxe d'accord ma ko. Mm. mais quand même que Amadou Ba mu ëpp li nga xamante ne mooy parrainage que Macky Sall xel nangu na ko. comment comment. Mm. xel nangu na ko mooy comment non parce que diggante 2019 ak léegi yokk nañ ci li nga xamante ne mooy wàllum parrainage nombre bi yokk na. kon su yokkoo bu ñëwee si ñoom seen seen gain Amadou Ba mën na dépasser Macky Sall même s'il n'est pas plus populaire que Macky Sall nombre inscrit ñoo yokk nombre inscrit bu yokkoo bu nekkee si seen. gàmm bu nekkee bu nekkee un exemple je donne un exemple. comprendre ah, je je vais expliquer pour ma pour pour ma comprendre. waaw soo bëgg dama ne par exemple. en deux je je parle des que nit ñi mën koo en deux si li nga mën mooy nombre d' inscrits votants ñu ngi woon si quatre millions. là c' est fi mu toll nii li nga xamante mooy nombre inscrit votant yi ñu ngi si à six millions fi toll nii en deux millions c' est ma woon na si wàllum parrainage jege woon na li nga xamante mooy deux millions. non da woon am na man la matu man am na ko matal ko deux millions mais da ngeen jege na ensuite. non xam nga su ma